leen faasiq indilee benn xabaar na ngeen seetaat seen na ngeen teelu seetaat seen xel bu ngeen dal ci kaw kenn ngiruk réer ngir topp loolu leen faasiq bi wax ndax kon boo demee waxtu woo demee ba gis jëf ja nam demee ak na wax na mbir ma demee da ngeen rëcc rëcc bu rëy te fekk jëf ja wéy naka noonu jëf yi tax suñu borom yërëm jaam ci ni ma yi ma waxoon yëpp boole na ci bari julli ci yonent allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rawatina bisu ajjuma ndax sallallahu alayhi wa sallam fépp foo xamee ne nit ja nit julli na ci moom am na malaayika mu toog ci boppam daf koy yëgal ne ko diw julli na ci yow bu ko defee ma dal di julli ci moom bu yonent bi jullee ci moom suñu borom dana ànd ak malaayikaam julli ci moom benn yoon boo julli ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu borom dana julli ci yow fukki yoon boo jullee ci yow fukki yoon mu julli ci yow téeméer boo jullee ci moom téeméer mu julli ci yow junni te kon sa yaram dana araam safara te nee ñu képp koo xam ne julli nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti fukki yoon suñu borom dana la jéggal bakkaaru juróom-ñetti fukki at dañ ne sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy jullee ci yow mu ne da nga naan allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabii lu mu yi mu ne ñaari am na ñeneen ñaari baat ñoo xam ne ñu woyof la ci lamiñ te diis nañu lool ci bu keroog gisee bu ñuy peese jëf yi te ñaari baat la ñoo xam ne yàlla sopp na leen lool mooy subhanallahi wa bi amdihi subhanallahi al azim jéggalu kon ak wax baat yooyu day far ay bakkaar te sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne wéet nga fàttaliku yàlla ba jooy say bët yi ñu rangooñ ngir fàttaliku yàlla rek sa yaram dana araam safara jàng suratul mulki guddi gu nekk day tàqale nit mbugalum bàmmeel dana tax kenn du ko baal kenn du ko bàmmeel ci bàmmeel bi kenn du ko ci mbugal suratul duxaani képp ku koy jàng guddi gu nekk bis bu xëyee day mel na ko ndeyam jure woon ci ñàkk bàkkaar kon jàmbaar ci jëf am na solo suñu borom digle na itam kersa rus yàlla ci sa ay jëf rus ko foo toll ak lépp looy jëf dana waral texee di gu dëpp texee di texee gu dëppeetu goo xam ne dara du ko mën a dox ci diggante bi feebar nii sax dana dal nit bu dee jullit mu xam ne yàllaa ko ko teg muy kaafaara ci moom far bàkkaar bu mu amoon Sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul Jinaan ne dég sax dana jam nit xolam metti ci mu xam ne yàllaa ko ko teg mu far bàkkaaram bépp te suñu borom dëhal na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci yërmande ñeel xeetam yi loo xam ne jàpp nañ ne sax ne xeet bi du ko mat bu keroogee ci ñi yërëm wax na it ne benn jaam rek ci jaami suñu borom ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam dana ramm keroog bis penc ba loo xam ne dana toll ne maanaam ko doon wax wala fa tukulóor te suñu borom lépp lu mu dëhal doomu aadama dana ko matal te yërmandeem lu yaatu la làmb na nit ñëpp àdduna ak alaxira yowmal xiyaam sax bis penc bi bu ñu ko dee waxtaanee li muy tiis tiis am na jaam yoo xam ne suñu borom dana ko woyofalal ci ñoom ba nga xam ne julli ñeent rakka wala ñaari rakka koy gën a woyof ci ñoom moo gën a diis ci moom. te képp koo xam ne kii suñu borom tegoon na la balaa fii nga muñ ko yowmal xiyaam bu ñu lay fay ka ñu jàmmaloon ci àdduna dana la ñee ba su sañoon yaramam bii ci àdduna ñu suufee woon ko lépp ba mu def ay sagar ndax ñee la ndax ñooñu kenn du peese seen i jëf suñu borom daf leen di sotti rek seen i yiw ba kenn du xam ne mu toll wa ahlu balaa laysa lahum misaan wa laysa sharu lahum diwaan kon sallallahu alayhi wa sallam nga nee na texe ñeel na képp koo xam ne xamal nañ ko lislaam mu dugg ca te wërsëgam di loo xam ne dafa yem ci moom rek ci dundal ko amul jiw bu muy denc ci di ko def xelam sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yàlla wërsëgal ne lu néew nga doyloo ko loo jëf lu mu tuut tuut suñu borom dana ko doyloo ci sa jëf ci rafet suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmal qiyaamati suñu borom dana saxal ay jaam yoo xam ne sama xeet wi la bu ñu dekkee ay laaf ñu dal di naaw teggee foofu rek dem àjjana bu ñu demee àjjana xam ne dañu jóge ci seeni bàmmeel rek dem àjjana bu ñu jaari fenn nam leen soobe ak fu mu leen soob rek malaayika yi dañ leen waaw yéen ndax dem ngeen ci xisaab ba ñu ne laaw luy xisaab ñun da ci suñu xisaab mun da gisuñu benn xisaab ñu malaayka yi naan leen waaw jéggi ngeen siraat ñu ne luy siraat mun de xamuñu luy siraat mun da jéggiwuñu siraat gisuñu gisuñu luy niru siraat de ndax gis ngeen jaanama ñu ne ah ñun daal gisuñu jaanama malaayka yi ñee leen ba naan leen waaw yéen fu ngeen bokk ñu ne ah ñun de ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam lan bokk ñun ñun ñun daal yéen daal ngir yàlla ak yonent bi rek sarax leen lu ngeen xamal nun lan ngeen doon jëfe lan la seen i jëf doonoon ci àdduna ñu ne nun de xanaa ñaar yii rek ñun daal am na ñaari gis ñoo xam ne ci lañu jote bii maqaama ak bii daraja ak bii may ci yërmande yàlla ak ngëneelam mu ne leen waaw ñaari ñaari xas la yooyu ñan la mu ne ñun daal waxtu dañ daan def bu ñu wéete it daanu kertawoo yàlla daanu rus suñu borom ba duñ ko moy te it bu ñu joxee lu ne it ñu doyloo ko ca la mu sedd malaayka yi ne leen ew waaye ndaw yéen daal yéen daal yéen la yàlla defal dëgg dëgg loo xam ne rek yéen rek ko am waaye nag loolu day jomb leen yéen ñi def loolu waxtu yi nag buñ ko seetee ñi nga xam ne noonu la gàtte nu taxawlu foofu bu fekkee ne am na ay laaj nu dem ci tuuti bu amul itam rek nu ñaanante fii yàlla def na sax laaj yi bariwul laaj yi bariwul ñu toog tuuti rek ci diglu ko ginnaaw bu nu gërëmee conférence bi di Serigne Sam ci conférence tasawuf bi mu nu defal yëg nañu bu baax a baax njariñ li nga xam ne nii waxtaan wi am na ko ndax ñaare waxtaan rek moo am waxtaan wi nga xam ne nii dafay jóg ñu di ko waxtaan ak jëmmu doomu aadama bi ak waxtaan wi ñuy waxtaan ak ruuxu doomu aadama ruu nag ñun ñëpp xam na ni mënul yëngu boo gisee tekkeeral ci saal bi tekkeeral mooy ruux yi la Serigne Sam doon waxal te ruux moom du yëngu bu ñu waxoon ak yaram yeeg bànneex yi ba tey dañ nañu miir yi waaye nag war nañuy sédd toujours sunu ruux yi rawatina ku gëru ci tarixatu Seex al Xaadim mi nga xam ni lépp dafa tuuti woon fi moom lu askanoo ak yàlla rek moo rëy fi moom te doomu aadama ruu képp moo askanoo ak yàlla ci jëmmam leneen li ci des lépp suuf la askanool moo tax bu ñuy sédd cër bi nag cër bu mag boobu nga xam ne moom la Seex Xadim doon liggéeyal war nañ koy sédd ëppal ko kon waxtaan yi nga xam ne nii ruu lay waxal war nañ koy bari te xaw a néewal nag waxtaan yi nga xam ne nii moom yaram rek lay waxal nuy tëbaka dal laaj bu njëkk bi dafay laaj ni waaw doomu aadama bi def lu ko yoon reye te mu nekk fu mel ni réew mii nga xam ne nii yoon doxu fi di reye waajoojee rëccandi di defaat defaat ginnaaw ba jëfu yiw fan la yiwam woowu di tegu ak waroon googu ñu ko waroon a rey loolu mooy laaj bi njëkk bi nga xam ne nii mbokk laaj na ko fi beneen laaj bi ci des dafay laaj ni dafa dégg ñu ni Serigne Touba da daan tere ku firi alquran te mu gis ci réew mi ñu bari di firi quran muy laaj ndax ba mu ko tere it dafa am ay sart boog yu nit ki war a matal sa koo firi te ñooñu kon matal ko am ndéet ñaari laaj benn bi dafay laaj waaw
waaw comme nga xam ne dafa jëfoon loo xam ne yoon rey na ko ñu ko sharia tërale moo di koo xam ne kii sëy na ba noppi dem mooy jàdd yoon nga xam ne bu ko defee lii tax yoon rey ko moo di benn ñeenti seede taxawal seede ko wala moom ci boppam mu def lii atiraaf waxal ko boppam ñeenti seede yi am nay sart lu ñëpp di góor lu ñëpp di gor lu ñëpp di mukallaf nañ ko gisandooy ci benn jamono te bu kenn ci ñàkk matal melaw maanaam kenn ki ne damay ñëw fekk muy muy pare bay génn wala damay fay fekk muy def nii na ñëpp jàlloo moom ñu misaal ne ni kuur gi ci gënn gi bu ko defee bu ko ñooñu ba noppi ñu nangoo dem ca ay akim ja misaal noonu taxaw ba da matal seede si bu ko defee kooku yoon rey na ko dañ koy def raj mu dañ koy sànni doj lapidation ba mu dee wala ku nekk xam ne ne loolu moom jafe na seede yooyu jafe na bu fekkoon ne ñett yi ñoo ko gis itam kenn ki ñëw ne man day dama fekk ñu pare wala dama fekk nangam ñett ña ko wax ñu dóor leen maanaam géttanub xaste dañ leen caw ku ci nekk juróom-ñetti fukki yar ne leen da ngeen a xaste ne leen fen ngeen kon ñu mel ne loolu dañ ko wax luwul ki nga xam ne nag mooy dikkal boppam ne moom def na ko moo xam dafa tuub ba jajju ba tiit bëgg bàkkaaram wàcc mu ñëw waxal ko boppam kooku moom yuxadul mukallafu bi iqraarihi mukallaf daañu ko jàppe la mu tuddal boppam gis ngeen ci jawharu nafis ci sëñ Tuubaa waxee ne sallallahu alayhi wa sallam qad kaana zaahiban wa jaahu rajul fa qaala qad halaktu yaa xayra rasul qaala lahu lima fa qaala inni zanaytu muhsanan bi hamdin minni bi amdin minni qaala lahu dunaasu yarjumuka sum daahumu fa qatalu isbi'in wa baada zaaka tabi'ahu shaxsaani li rajulin marjuulin yaqtadaani xataa atoo jiifata aydin fa halaf fa waqaf sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa zaadaani kulaa zi wa halaf ni mu gën a gàttee moo di ne ki ñëwoon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de alku naa mu ne ko lu tax mu ne ko damaa jàdd yoon fekk ma sangu woon sallallahu alayhi wasallam jéem na ko yërëm ba tàyyi ngir bëgg mu dellu gannaaw moo tax mu bëgg ñu rey ko ndax yoon loolu la ci wax mu dal ne ko wool nit gaañ ñu woo nit ñi ñëw ñu dal di koy rey bi ñu ko reyee ba noppi yonent bi dem am ñaar ñu ko topp di jëw waa ji nga xam ne dafa defoon loolu ba ñu àgg ci mbaam mu mëdd mooy leen lekk leen ci mbaam mu mëdd nii waa ji ngeen di wax de séen naa ko mu nekk ca àjjana di juri ay malaanam bokk na ci jigéen ji ñu rey woon itam ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne tuub na tuub goo xam ne bu ñu ko séddale woon waa dëkk bi ñëpp mucc ndax rëcc gu métti rek waaye nag dafa fekk ne lii war a tax yoon rey ko moom mooy mu dikk ne def naa wala ñeenti seede yooyu ñu waxoon ne lu jafee am la daanaka mësula am wala dana néew ñu taxaw ne kii kat noo ko fekk muy def nii booba la ko yoon di rey nga xam ne kon sallallahu alayhi wasallam teewul mu wax ne képp koo ci xam ne kii yàlla suturaal na la suturaalal sa bopp maanaam boo jàddoon ba jaar foofu it ñeenti seede yi ku ne xam ne ne jafe na moo xam gis nañ la wala gisuñu la wala ñu ko gis matal nañ sàtte wala matañu duñu ko nga boo suturaalee sa bopp yoon reyu la waxuloo ko yoon reyu la bu la yoon reyoon itam nag te kenn reyu la itam yow weesuwoo jaam boo xam ne def na loo xam ne dañu ne ñi fi taxawal sharia sant nañ leen ñu def ci lii ñooñu defuñu ko yow ci sa bopp boo tuubee yàlla mën na la koo baal li nga fi defaat lépp ci lu baax itam yàlla mën na koo nangu ndax tuub moom ñetti sart yi rek la am bu bu ñetti sart yi dajee ne la wóor ne nangul nañu la moo di mu nga réccu ni waajoo ji defoon na nga fas yéene dootoo ca delloo ci mukk sa girub dund li nga defit na la naqari lool bu ko defee baal nañu la li nga fi jaamuwaar yàlla yépp sa bénéfice la ndax bu sooboon yàlla ñeent ñu taxaw wala nga dem xamle ko ci sa bopp nga wax ko ba yoon rey la ñu rey la te bu ko neexee du la baal ndax mbaa moom ci loxo yàlla rek la ne bu ko neexee mu baal la bu ko neexee mu bañ laa baal lii moom kat ci yoon lu yoon tege rek la ne nañ ko def mooy li ci war sañu ñu ko bañ bu sart yi ma tee rek war nañoo def loolu moo xam nag yàlla ci biir yàllaa ko xam bu la baale bu la baalul naka noonu nit ki loolu dafa génn sharia ndax sharia moom baal ak ñàkk baal du affaire am loolu affaire yàlla la ak digganteem ak jaam bi kon buñ ko réyul itam jaam la boo xam ne rek mu ngi ci kaw suuf yàllaa xam lam ko bindaloon ëllëg bu dee texee bu dee texee di ak lam ko bindaloon ci wërsëgu jaamu yàlla bu ko defee te yàlla nangu ko nangu na ko rek kon li ci sori li ñu ci sant sharia mooy na ko def rek loolu kon mooy tontu li jaam bi daal buñ ko bu ko yoon waroon a rey tëre yu ñu ko it mën naa am sax yoon reyu ko ndax ñeenti seede taxawul wala moom deful itiraab wala bu ko yoon wi reyoon itam te reyu ñu ko it reyu ñu ko rek déewul kuy dund nag yaa ngi ci kaw suuf jaamu yàlla la war da nga war a jaamu bu ko neexee bu neexee yàlla mu nangu ko ne keneen bu ko neexee mu bañ ko nangu ne keneen ñaareel bi mooy lan firi alquran firi alquran firi alquran borom basiira yépp nga xam ne xam nañ luy alquran xam nañ ne lu diis la lu foor a foor la ndax sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fi nekkee lépp buñ masaan wax lu jëm ci alxuraan di ci xuus daf daan mer ba mer mi feeñ ci jëm bi naka noonu Seydina Omar benn waaye mas na koo laaj maanaam ñaari aaya yoo xam ne dafa mel ni ñu contradictoire maanaam ñu mel ne dañoo weddante def tanaa ko mu daal di fab gura bi dóor ko ci bopp ñu ko kenn digalu leen digalu leen loolu dañ leen a digal ngeen topp liñ leen digal bàyyi liñ leen tere liñ leen sant ñi nga xam ne ci saaba yi am na yennati aaya yoo xam ne yii waxtaane nañ ca ay ñennat lañu du ñëpp waaye yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam saxal na ne amul wenn xaraf ci arafi alquran lu dul am na biir ak bitti alquran dafa am biir ak bitti biir boobee amati biir beneen biir ba am biir ba muy juróom-ñaari biir juróom-ñaar sax mën nañ koo wax te fekk nammuñu lim bi ne juróom-ñaar rek la dañoo nam nammuñu lim bi nga xam ne mooy juróom-ñaar dañoo nam rek baril gi loolu lépp nag jaam ñi xamuñu ko ndax sayidina abdullah ibnu abbas nee na allahu alladi xalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman aaya jooju bu fekkoon ne firi naa ko kon ñu dagg sama baat ak sama bopp ali zeynul abidina nee na sama xam-xam day la ci gën a am solo danaa ko nëbb ndax duma ko feeñal ndax damaa bañ boroomu réer gis ko dugg ci fitna te lii may wax fitna ali ne ko njëkkee woon digaloon na ko Asan ak Useynu bari na jawharu xam-xam boo xam ne bu ma ko waxoon ñu ne ma yow da ngay jaamu xërëm te kon ay jullit yu gëm daañu daganalal sama deret te kon la gën a bon la ñuy def te defe ne lu baax la kon alquran nëbb na lu bare bare bare luñ xamul imam Maalik bi ñu ko laajee istawa alal arsi baatu istiwaaw rek dafa ne al istiwaaw maalumun wal imaanu bihi waajibun wal kayfiyatu majhulatun wa sualu anhu bidatun istiwaaw ni suñu borom waxee ne def na istiwaaw istiwaaw ñu ko doomu aadama yi firee ci mooy yemoo mooy nii ma toogee ci sees bi ñu ne yàlla loolu jomb na ci moom te mu ne toog na ca aras maanaam ca fauteuil ba nan la ca toogee loolu lan la imam Maalik ne leen l'istiwaaw ci boppam lu ñu xam la gëm ko war na bépp jullit laaj ko nag bidaa la meloo ko yàlla defee lu ump jaam ñi la kon wane na ne alquran ay lënti jaam ñi rek la ñaareel bi Abu Hurayra nee na jëleel naa leen ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuusi xam-xam menn mbuus mi yullil naa leen ko mi ci def bu ma ko yulli woon ñu dagg kii sidna Aliyun nee na لقد أدخلت لساني في فمي فانفتحت لي ألف باب من العلم فوحق المعبود لو وضعت لي وسادة جلست عليها لحكمت على أهل التوراة بتوراتي وعلى أهل الإنجيل بإنجيلي وعلى أهل هذا القرآن بقرآنهم dugal naa sama lamiñ ci sama gémmiñ junni bunti xam-xam ubbikul ma giñ naa ci xaq li ñuy jaamu mooy suñu borom ne buñ ma tegaloon njeganaay ma toog ci danaa atte waa tawret ci seen tawret waa linjil ci seen linjil waa alquran ji ci seen ñooñ alquran giñ na ne su fekkonte ne amoon nañ ci ndigal fatihatul kitaab rek dana ci saraa lu diis ñeen fukki gëléem gaa ñi nga xam ne dem nañu ba xam riis koogu alxuraan riis ak kumpa yi ci suñu borom dajale ak kaawteef yi daañu ko ragal ragal googu ñu koy ragal ndax ragal gi ñu ragal suñu borom ak ragal waxal ko lu mu waxul ak ragale wëlbati ay waxam wax ca loo xam ne bokkul ak li mu jublu ak ragala wax loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf caa taxaw lu woon dugg ca tax na ñu ragal la firi alxuraan ba tere ko ñu ñu àndal loolu yàgg na yaatu na am na ci ulama yi ñoo xam ne nee ñu alquran leetar la boo xam ne dafa jógee kaw asamaan wàcc ci kaw jaam ñi digal leen tere leen kon war nañoo xam lim leen digal ak lim leen tere ba tax na kon war nañoo firi alquran ñu ne alquran nag ku ko firi foo koy sukk ak fan nga koy jëlee gannaaw alquran ab junj la te suñu borom nee na ayatun muhkamatun hunna umul kitaabi wa uxaru mutashabihatun alquran wàcc nañ ko muy ay aaya yoo xam ne muhkama la muhkama ulama yi wuti nañ ci daan ko wax nan la demee ak yeneen yoo xam ne dafa lënt te yu lënt yooyu kat mooy ndeyi téere bi kon yu lënt na ko jaam bi xamee ba di ko firi ñu ne alxuraan di niñ ko firee nii la yenn ci yenn waxi sayyidatuna Aïcha lu war a mat toll ci fukki aaya ak nangam yoo xam ne ci sayyidina Ali lañ ko jëlee yenn te aaya yoo xam ne ci Abdullah ibn Abbas lañ ko jëlee nga xam ne Mujahid saa yu dem ak Afa xam ne ñoo ko jëlee ci ñoom ñu ne yenn ci def tafsir bil manquli la mooy ay xadis yoo xam ne ñoo ñëw lira leeral alquran ak jëfi yonent bi yoo xam ne daf koo jëf ñu xam ne lii kat aaya sàngam la leeral ba tax ne kon loolu war nañ koo leeral jaam ñi ñele ne leen ba tey loolu ak réer la ndax bokkul ak firi alquran ndax da ngeen a nettali loo xam ne lii jaam ñi war nañ koo xam ngir jëfe ko te muy jëf ju yonent bi jëfoon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy jëf di firee nii mënoon naa woosaaba yi firil leen alquran waaye defu ko dafa jëf ne leen nii la ñuy jëfe ñu gis loola kon lépp lu ñu war a aajo woo yonent bi jëfe na ko wax na ko ñu jëfe ko alquran mënee si cee xam ñaata rakkaa la nit di julli mënee si cee xam booy biral ak booy yaru mënee si cee xam waxtu sàngam wax ban waxtu lay jot mënee si cee xam yooyu yëpp kon li ñu xam te war koo xam lépp muy leeral suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ñu ne nag waaye xam-xam alquran mooy ndeyam wala maa yi dem ci beneen ñi nga xam ne dañoo jaamu yàlla ba am basiira bu leer ñu ne ñun ñoom ñoom la yàlla xamal li nga xam ne mooy yuquk alquran alquran ci boppam dafa ne wa maa yaalamu taawilahu illa allahu taawil alquran kenn xamu ko ku dul yàlla kon taawil ga fu muy feeñee yomal xiyaam te bu boobaa lu muy jëriñati gaa ñi nga xam ne nag mën na la seen yaram daw na seen xol tiit ngir noonu alquran mel ndax alquran bu ñu seetee dafa wuuteeg téere yi wàccoon wuute bu bari gis nañ ne ay téere wàccoon na bu njëkk waaye téere yooyu lu mu wuteeg alquran li tubaab di wax maanaam texte révélé ak texte inspiré dañoo wuute téere yooyu maanaam message ba maanaam maanaama moo wàccoon ci xolu yonent yooyu ñoom seen bopp ñu wax ko ak ni ñuy waxe ñoom ci lamiñ wa ñu nàmp kon nas boobee maanaam texte yooyee am na orma ndax la mu ëmb la mu véhiculé muy message bi jóge ci yàlla tax na ñu ormaal ko waaye wax ja waxi mbindeef la waxin wa alquran nag nii mu wàcce texte bi ak message bi lépp a jóge fa yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokku ci xaraf wàññiwu ci xaraf yokku ci virgule wàññiwu ko ci nii la dikkee kon muy wax yàlla joo xam ne mu ngi jóge ca na ca yàlla na mu ko waxee mu di aw meloom dikk ci kaw suuf ba tax na génnale naa mbóot yi mu nëbb waaye rafetaay bi ci kaw li ñuy wax maanaam valeur littéraire am rek jaa jaaxal na doomu aadama yi ndax mooy gànnaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi gën a ñaw daf daan def buy woote du def lu dul tari ay ay alxuraan rek ñi nga xam ne ay arab lañu te xam namp nañu arab te dëkkoon ci société boobee alxuraan wàcce xam Mohammed ni mu wax bu ko bu ñu ko masaan dégg rek dañuy jommi jaaxle jaaxle waaru ba du ñu mel ne du dul jàppe ak njabar ndax ni muy def ci seen xol ñu dal di tuub ba tax ñu dem bay tere ku déglu Mohammed ndax bu ñu ko dee déglu rek muy tara alxuraan ñëpp dañuy dal di tuub ñi ko daan dégg ñi ko daan tere ñoom seen bopp ñu toog jëmmi guddi dégg ko muy tare alxuraan guddi ñu nëbbu ndax ni ñu ko déggee ni mu yéemee rek ñu kenn ku ci nekk jógee sa kër topp saw yoon ba àgg ci néeg bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk làqu di ko déglu muy tari ba njël ba fajar ba ñuy dellu daje ñoom ñeent ñu daje ci yoon wi dañ ko njëkkee def ñu yeddante ne ñun kat gannaaw nun nooy tere ku déglu Muhammad ñun suñu bopp buñ ko dee déglu buñ feeñee kon dootuñu mën a tere kenn ñu ne kon boo liggéey buñ ko defati waaye ci ëllëg si ba mu tàmbalee tey jàng mën a fiñ ko mu ñu daal di delloo seeti di ko déglu ba muy ñetti yoon lu nekk ku nekk xam na ne kon loolu du waxi doomu aadama ñu tuddee ko jabar ndax li muy wax kon wax joo xam ne waxi yàllaa la tubaab yi sax seen bopp wax nañu ne boo seetee am na téere histoire boo xam ne livre histoire programme mu cinquième la Cissé ba bokk na ci ñu ko bind collection collectivité la bi ñu ko bindee wax bi ñu accès ci l'islam bi ñu accès ci alxuraan nee ñu alxuraan fi nga xam ne bi muy wàcc lan ñu arab toll na fi ci perfection ñi nga xam ne ñoo gënoon a mën langue bi gën cee am éloquence maanaam fasaaxa gën cee dàq wax fi ñu toll ak fa perfection alxuraan toll ay ay milliers liers la yoo xam ne ba léegi amagul lu ko mën a expliquer ba léegi xamaguñu lan ko waral loolu li ko mën a expliquer lu leer la moo di alxuraan ci yàlla la jóge kon nag jullit bu nekk booy jàng alxuraan war nga yëpp ne wax yàlla ngay jàng nga def boo xamee la muy wax ak boo ko xamul lépp tuyaaba la am joo xam ne bu sa xol tiitee nga xam ne yaa ngi ci kanamu yàlla di wax waxam loolu lu foor la kon képp ku la gën a jege yàlla gën laa xam yàlla moo la gën a ragal alxuraan moo la ko gën a mën a moyandiku kon du kéem tànn ci am ci gaa yi yàlla yi ñoo xam ne ragal nañu alxuraan ba duñ ko firi daañuy laaj nit itam mu bañ ko firi ulama yi nag nga xam ne xam-xam la ñu jàng yeewu ñoom seenub gis-gis ñi ci gën a bari mooy firi alquran la ñu gis ndax firi alquran xam-xam la boo xam ne itam xëy na liñ ciy jëlee ci njëriñi nit ñi ci xuus ci géej gi xam-xam yoo xam ne lu ñu toxal la moo leen ci dugal loolu ñooñu itam dañoo bëgg lu jëriñ nit ñi yee leen mu di loo xam ne ñoom fa la ñu toll te doomu aadama yi itam fa fa lañ leen mën a jëriñee ñu dal di teg ay charte ñoom it yoo xam ne yi pour nga mën a firi alquran ku nekk xam nga ne waxi wolof ji nga nàmp sax boo ko doon wax nit ak si te fekkul tàmbali ba xamul la tax ngay wax du ko mën a comprendre kon alquran da nga gis ñaari aaya yi tësaloo ñoo xam ne xëy na bi bii wàcce ak bi bii daataan wàcc seen diggante ma tey juróom-benn at wala juróom-ñaar wala juróom-ñetti at nga xam ne jotewuñu dara te ñoo tësoo ci téere bi nga fab téere bi nii rek di jàng di yooyu doo ci xam dara kon loo dégg dégg arab ñu teg loolu tax ñoom seen bopp ñu teg ay charte yoo xam ne ay xam-xam yoo war a xam bala ngay firi alquran ñu laaj nga xam balaaxa xam société arabe bi di nga xam xam di nga xam balaaxa nga xam it sababu nusul sababu nusul mooy maanaam li ñuy tubaab di wax les circonstances de révélation ndax ay alquran yi am na ci yoo xam ne tontu la kol bu bu yahudi yi doon kole yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ñëw ne ko ne leen nangam am ci yeneen yoo xam ne saaba yi ñoom ñoo dem doon doon moo xam dañ doon xare wala dañ doon jëgg wala dañ doon commerce ñu tukki xew-xew wàcc boo xam ne werante nañ ca bi alquran wàcc ba ñu daataan ñëw ne leen nangam bu amee nangamay atte bi bi ñëwee yonent bi leeral leen wala jullit boo xam ne dafa am diggante nag beneen moroomu jullitam lu xew ñu war koo atte yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran wàcc ne ko waxal lii wala moom ci bopp moom sallallahu alayhi wasallam jullit laaj ko xew-xew bu am sallallahu alayhi wasallam xamagu ca dara mu nekk atte bi aaya wàcc muy lii yooyu yëpp nag boo xamul asbaabu nuzul maanaam werte bu ne la tax mu wàcc pour nga firi alquran doo ci xam dara kon bokk na ci charte yi fukki xam-xam ak ñaar yoo xam ne da nga leen a war a dajale soog a mën a firi alquran loolu kon buñ ko defee wala maa am nañu bari ñoo xam ne ñu ngi firi alquran te xamuñu sax tur yi xam-xam yooyu wala xamuñu ca dara loolu kon toolu pël la rek lañ ko def ku jóg rek loola neex nga wax ko
jërëjëf Serigne Sam boobu laaj leer na nañ ñi danu yàlla defal ak dégg ak topp beneen laaj bi ñu déglu tuuti beneen laaj bi Serigne Khadim Mbacke imam Ilimane moo koy laaj dafay laaj wax ji ñuy faral di dégg kalaamun qadimun la yumallu shama'uhu tanassaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahri wa ayrati muy laaj wax jooju ku ko wax ak lu sabab wax ji
ana ñaari bayt yi kalaamun qadimun la yumallu sama'uhu donc seel ma. waaw ma def ko waaw. sàmm bi ma ci mooy ñu ko def ko waaw. كلام قديم لا يمت سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي إلى آخر قال كلام قديم مدلة ملو yin waxoon ci alquran alquran melaw suñu borom la ni nga xam ne da nga naan suñu borom amul tàmbali tàmbaliwul fenn te du yemi fenn du tële dara du umpale dara du fàddu wali fenn ba ba muy jeex melom yooyu ci la alquran bokk aw melom la ndax waxam la waxam ci melom la kenn du yokkat maanaam du la sàppi mukk nga di déglu alquran kana tax muy wax ki xam nu alquran toll xam luy alquran bu ñu doon jàng alquran fii ba àdduna tukki bànnee xam ci dégg alquran day gën a yokku rek mu di amit toujours loo xam ne xolam aajo woon na ko te aaya yi ñuy jàng daf ko koy indil te feeg noppiwuñu du dañ gis nañ ci gaa yi yàlla ñu ko xam ne nee na daana wàcce alquran ci bis ba mu yàgg mu di ko wàcce ci ñetti fan ba mu yàgg mu di wàcce ci fukki fan ba mu yàgg muy wàcce ci weer ba mu yàgg muy wàcce ci at mu ne maa ngi nii fukki at ak nangam ngi nii ma tàmbali woon benn waqaf boo xam ne ba tey àggagul li ko waral mooy feeg mu ngi gën a jàng kawteef yi ak kéemtaan yi ak secret yi di gën a sulli ko mu di ko gën a gis rek ba tax na njàng mi yéex ndax tadabbur boobu muy def ci yooyu kon kooku du yokkat mukk ci jàng alquran tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin suñ borom tabaraka wa taala aw meloom sore naag waxi doom muy waxi doom doon waxi doomu aadama sore naag jëfi doomu aadama ak jëfi doomu aadama loolu mu yéene doomu aadama loolu lépp ngi ci suufam suñ borom mu ngi ca kaw loolu lépp maanaam taala an kulli zalika moom nee na sëñ bi mi ngi mi ngi doyloo mu mu ngi saafarloo ci téere boobu te mooy alquran jëpp jàngoro jëpp jàngoro ju mu fekk ci yaramam wala ci xolam wala ju mu mën a doon muy june ci boppam la wala ku ne ci june ci mbokkam wala ci kenn ci ñu aju ci moom mi ngi koy saafarloo alquran rek ndax leeruk alquran nee na mooy tegtalu xolam waxtu woo xamee ne umpale na dara wala jaaxle na ci dara dañu wax ne noonu nga xam ne moom radiallahu anhu dafa doon woo suñu borom tabaraka wa taala ci produit sell ba mu yàgg mu xamal ko ne ko bul wax bu ma woo wenn tur bul wax yaa rabbi bul wax dara neel yaa jaari yow sama aji sama dëkkaale bi maanaam ne suñu borom xamal na ko ne dëkkaaleem la te boobu waxagul jaawartu bil furqaani rabbi al muin mu ne alif laam miim ni ko ko suñu borom firile alif gi mooy awrastukal kitaaba doon loo naa la téere bi maanaam téere yàlla bii mu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon loo naa la ko maanaam jox loo naa la ko muy sa doon nga doon ko muy alif gi awrastukal kitaaba laam gi di làqantukal kitaaba sanaa la maanaay téere bi moo tax mu ne naajaaniyel munzilu bil qur'ani xata xadawtu mawrida zam'ani ki wàcce alquran déey na ma maanaa yi dama mujj di naan waayu képp ku mar miim gi di mallak tugal kitaaba moom loo naa la téere bi